sant yàlla rek nga xam ni bon comme ni nga ko waxee sànq liggéey bi metti woon na yàgg na parce que jiite ay ndaw dafa metti surtout ci dëkk Thiès bi nga xam ni dëkk politique la nga xam ni organisation jeunesse yi xaw nañ fee bari yooyu mais yàlla def na ci ndam quand même comme ni ma ko waxee sànq eh, soo xoolee ci quartier yu bëri tey def nañ fa ay cercle yoo xam ne ay cercle étudiant la nga xam ne suñu camarades yi ngi koy liggéey yàlla def na ci suñu biir mandat bi aussi élection bu am depuis 2012 xëy na ñun ñooy jiite commission ndaw yi ci Benno Bokk Yaakaar Benno Siggil Sénégal te loolu yaakaar naa du lu ndaw yàlla def it aussi ñu daje noonu fii li ñuy wax le comité des jeunes de ALNEF nga xam ne ay pays africains la mo 30 pays africains la ñu mu nekk vice coordonnateur bi te loolu lépp aussi dama ne su ma ko amee ci UGIDAN laa ko amee parce que ci biir organisation de jeunesse boobu laa xanaa kon di fàttali rek aussi que ne UGIDAN c'est une organisation affiliée au PIT sànq xam naa ko waatee ci français bi. une organisation affiliée au PIT boo xam ne 1979 lañ ko créé te ba léegi mi ngi dox yoonam te yaakaar naa ku xool tey Mary Teuw Niane nga xam ni mooy ministre de l'enseignement supérieur te ci ñu créé UGDAM 79 ci la bokk donc yaakaar naa euh, instrument la boo xam ni ñi nga xam ne ñoom lañ ko léggee war nañoo xam ban portée la instrument boobu am ci Sénégal mais ci Thiès yi nga xam ni fa la pays Thiès a juddoo ak yooyu yëpp je crois que xëy na ñoom dinañ mën a def lu lu kawe ñun suñu njot ak li nga xam ne jotoon nañu koy def mais daal li wax ne rek saabu du foofu bootam mais ne aw na ay jéegu daal li ñuy def mais nag njaw dese na xam ne yaakaar naa nouvelle équipe bi ñëw dana mën a mottal mottali suñuy mbébét mottali suñu yéene ba xëy na fu ñu fa jot woon yegg fu ñu jot woon daj ñoom ñu daj fa ba mën a gën a taaral Ugidan gën koo jëmmal gën koo siiwal wasaare ko aussi ci biir Sénégal wasaare ko ci biir euh, Thiès wax naa sànq ni aussi am na ay problème yoo xam ne jën jàng koy mooy wàllum njàng mi wàllum formation yi wàllum prison yi tey jii Dakar am na mutinerie Thiès mu ngi ne grève la faim la ñuy def te ñëpp xam nañ ni prison yi ci gën a bari ay ndaw ñoo fa nekk donc question yi aussi dafa war a intéresser ñu dem xool il y a aussi le boom démographique seet nañu àdduna bi léegi Thiès surtout Sénégal nit ñi dañoo gën a bëri ñoo gën yokk te xëy na motuwaay jëlaguñ ko ba ñu mën a ndaw yooyu nga xam ne ñu ngi ñëw ñu xool fu ñu leen mën a accueillir fu ñu leen mën a orienté yaakaar naa question yooyu yëpp tey président war na cee mën taxaw indi ci ay réponses yoo xam ne xëy na dana mën a euh, changer changer doxalin ak. waaw maa ngi ci commune bi di ko sant yàlla di ko sant suñu kilifa yi ñoom amat ñoom ñëpp vraiment def nañ ci liggéey bu am solo boobu léegi ñu ngi suñu ginnaaw aussi di ñu gunge parce que olof Njaay nee na peccum liir su neexee ndey ji moo jàpp ci mbagg yi ñoom ñooy suñu yaay ñooy suñu lépp vraiment uf nañ ñu tatagal nañu defal nañu maa ngi ci commune bi di ñaan rek mission bi yót dana mu nekkoon ci ndaw ñi xëy na yàlla dana ma barke boobu ñëw fekk ci commune ba suñu ndam si yàlla Mamadou li mu fa defoon yàlla mën nañ def xëy nañ ko wees parce que ay mbébétam yëpp moo doon mu nekk maire cees ah mbébét moom ak àdduna ñoo ànd ñooñu ñaan su dee yàlla dana ko mën a jaarale ci ñun ñu mottali mbébét yi rek ba Égypte ba PIT mën a nekk meeru cees jël ko benn bis xëy na yaakaar naa dootu yàggati dara loolu daal mooy mbébét yi ak mooy jeexu yi ngeen daal voilà. asalaamaaleykum. ni judd na yàggul dara ñu war a def passation de service maanaam jokkalante leng yi sama diggante man ak seenu Ndonn man Mamadou Ndiaye euh, may jàngalekat nekk fii di servir ci département de Thiès bi Ousseynou Ndonn. nekk sama camarade de partiment moom ñu bokk nekk au PIT ñu bokkoon nag nekk UJDAN mu uufoon ma fa tette ma fa yor ma fa yee ma fa wax dëgg yàlla ma def ko mag mu def ma rakk ñu ànd boobu ba tey liggéey bu ñu mënti liggéey suñu borom dogal dinaa ci am as loo xam dinaa ko ci fekkee ba tax na am na expérience yoo xam ni wax dëgg yàlla bu ñu ko amee ci politique ginnaaw yàlla moom Ousseynou Ndione nii moo ñu ci tette te ñu ngi ko ciy sant di ko ci gërëm di ko sant aussi ci téye bi mu téye UJDAN téyewaay bu wér bu wóor bu leer bu mu bokk ak ñëpp wax dëgg ñu ngi ko ciy sant di ko ci gërëm te lii mu ñu dénk nag fas nañ ci yéene xar suñu tànki tubéy ñun ak ña nga xam ne ñoo nekk waa UJDAN ak fu waay mën a féyte fii au niveau de Thiès dinañ def lu war ba lépp dankaloo lépp la nga xam ne war nañ ko def comme liggéey muy xalaat bu ñu war a xalaat pour askan wi ak xew-xew yi nga xam ni war na mën a xew ci jamono ñu koy fekkee war ci xalaat di ci wax li nga xam ni moom mooy suñuy gën gi gën li nga xam ni moom la ñuy yéene par rapport à société loolu moom ci la ñuy ci moo ñu tax a jóg sax d'ailleurs ci la ñuy sax te nañ suñu borom bu fekkee ñu ngi topp ci tànk ñi nga xam ne ñoo ñoom la ñu lënkool ñu mel ni waa PIT ñu mel ni waa waa waa waa waa waa UDEPS wax dëgg yàlla loolu nga xam ni moo ñu yëkkati moo mës a doon suñu moo mës a doon taxawaay bëgg nañ ci sax tàkk soobee yàlla kon ci wàllu politique la waaw yaatal bi ci la ñu mës a nekk par rapport ak échéance yi di ñëw ci la ñuy sax tamit comme ni ma ko waxee woon ca njalbeen dañu lënkaloo ak ña nga xam ne ñooy waa PIT lënkaloo ak ña nga xam ne ñooy waa UDEFS ñu doon ay acteurs yoo xam ne c'est des acteurs yu yu yu yu yu significatifs au plan politique fii au à Thiès à à à au Sénégal et partout dans le monde alors léegi daal li ñu bëgg mooy. massification bi à l'image de li nga xam ni moom la politique u Sénégal di doxee fi mu toll nii dañ ko war a réactualiser maanaam ñu jéem a dëppale suñuy doxalin ak ni nga xam ni noonu la politique bi di doxee léegi au Sénégal te ñu ngi ciy xalaat li ñuy xaar mooy suñu mag ñi nga xam ne ñoom ñu lëkkaloo ñu jox ñu lenk bi nga xam ne moom la ñu war a jox teg ñu ci raay ñu war a jaar ñu jaar ci bu soobee yàlla incha allah. yan bi moom kon incha allah ñu ngi ñaan yàlla suñu borom mu woyofal ko lool te ñu am ci ndam te xam ni suñu ndam mooy ndamu askan wi ndax askan wi moo ñu tax a jóg. je vous